neen ab murid dëgg-dëgg moom ngërëmal yàlla dong dong moo koy soxal leneen lu bokk ci ngërëmal yàlla rek du ko geesu du ko wut du ko jéem a xam xam ne kon ab taalibe moom fu mu toll daa war a sax ci waajib ak mandoob rek waaye lu araam mbaa lu ñu sib mbaa sax lu wuuteeg la gën a yey muy xilaaful awlaa sax yooyu yoonam nekku ca tumma bayyana topp mu biral maanaam topp mu leeral wasfal muridi melaw taalibe ba wa natijata murafaqatil wasilina ak ngirtel àndoonteeg way àgg ña bayit yi mu lay bëgg a indil sëñ bi leeral na ci taalibe nu mu war a mel dëgg-dëgg ak ku ànd ak gaañ àgg lam lay jural natiijatu mooy lu juddoo ci dara maanaam daal ànd ak gaayu àgg yi nam lay jurale ak àgg yow itam ak ànd ak ku àggut ni lay xañe ak àgg faqala qaala tem wax ne wasful muridi melaw ab murid tarkuhu modi ak bayem al iradata nam lutlu yalla li wacc man ngir jëmmi ka nga xamne ya faalu dana def ma nga xamne ho nam nako ene melaw talibi dal moy ak namelam di genn te moy yalla soxlam di genn te moy yalla xam lepp lu muy bëgg rek yalla do ngoy tax mu diko bëgg te lo bëgg ngir yalla nak kon yalla ci deug deug mom nga bëgg man nam yurid ku namut shay'an dara siwa mawlaahu lu may boroomam yasil mu àgg lahoo jëm ci mom wa awlahu te mu méngale ko xayrahoo yiwam wa neena ku bëgg lumay yalla kon sen soxla kep nga am te sen soxla mom yalla da koy fajj rawante na soxla so xamni jëmum ji dong la kon ku namut lu may yalla yàlla àggale la ci bopam dal lay jox yep yiw nga am yep yiw fa man ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasala mu ag wa man ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasala mu facc manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jare ci ko xamni ne nak do man ag wa kullu man kep ko xamni lam yatta adab zamanan ci jand jamono xalaa ya day cheikhin ci ñaari loxoy ab sëriñ fayal xaa dana taseeg mihan ay coona li ànd man ngir naka koo xam ne xadima ñàkk na cheikhan ab sëriñ mursidan buy aji jubale fa cheikhuwoo sëriñam ak seytaanu mooy seytaane xay su xasada fu man di jubloo nee képp koo xam demoo ci ku àgg mu àggale la soo tuut du ñàkk lu la gàllankoor ndax boo tàmbali aw ci yoon wi di jema sel di tënku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeraay boo xam ne da ngay daldi xam secret yu bare bare yooyu jamono nag boo tuut da nga lu yàlla te lépp loo lu yàlla rek mu daal abnyak nekk ab ñàkk sa ak sa borom lool nag bu àndee ku àgg moom kooko moo koy xamal ko ah àggoo a li lipak la boo xam nar na laa fël daal di koy toppalal pakk ba moo tax mu ne képp koo xam ne demoo ci ab sëriñ boo xam ne aw na ci yoonoo ba àgg nga jaar ci ay loxo mu àggalal la su boobaa seytaane mooy daal di nekk sab sëriñ awale la fa ko gënal moom seytaane te fa ko gënal moom baaxut da yóbboo rek ca safaan ba fa cheikhu sëriñ ba dëgg-dëgg laa yu xaalifu du juyanteeg almushafaha kañu nangu am ci noom te mooy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi ndigalal sëriñ bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena sëriñ dëgg dëgg day jël tànkam teg ko fa yonante bi tegan tànkam kon nag képp koo xam ne yaa ngi topp ndigalul sëriñ bu mel noonu di bàyyi ak tereem faaw nga jariñu tey ji ak ëllëg jële fa haytuma amaraka fofu xamni digal na la al murabbi serignub tarbiya ba fam tasil na nga top al amra digal la tasil kon nga ag li rabbi jam ca bor ba neena sa yo xamne serigne bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul set ndax neex na ci yow am na bul set ba xam lolé da neex ci yow am dafa naqari ci yow dalal di gaaw rek jëfé digal la ngir yalla su boba kon da nga ag ci yalla ak wa haytuma nahaaka foofi xam ne tere na la xan shay in walis dara fala tamil bul jeng mukk laxoo jëm ca loolee wala tax te bul sàggan xan ridan walis ngërëm nee na saa yoo xam ne sëriñub tarbiya bi aaye na la dara loolee na ko sore bu baax a baax a baax te bul sàggan mukk ci dara loo xam ne moo lay may ngërëm lalay may ngërëm daal moom foo toll rek na nga ko safoo yëgoo ko bañ caa génn mukk-mukk lépp lu lépp lu la sëriñu tarbiya aay rek xamal ne daa doon lu la mën a xañ sa boroom ak ngërëmal sa boroom kon nag lu la tere bàyyi ko lu la digal def ko te yaakaar ca àgg ci yàlla ak ngërëmam summa bayyana topp mu leeral ne ànnal murida naka taalibe ba assaadi xabay aji dëggal laxoo ñeel na ko sifaatun ay melo yoo xam ne ida taxaqaqa ndéem dëggu na bihaa ci ñoom an tajat ñu jural ho ñal ko kul khayr bépp yiw sun bi leral na ne talibé deug deug bu di wax murid sariq melo yi muy bëgg wax mom la wara melo melowoo su ko melowoo daal di am lepp lu bax fa qalat mu wax li ne muridi meloy aji dëggu ci meloy aji dëggu yu talibé bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtuha yoo xam ne way naa leen xaw faxa diraarin ngir ragal ak woru nee na al murid sadiq am na yenti melo yoo xam ne moo nekk nii ma way ko ndax bañ kenn defe ne moom la te doonu ko baa kenn jorte ko kenn defe ne matale na sart yi te matalewu ko ba ci njëkk mooy assidduxu dëggal fii mahabbati cheikh yi ci topp sëriñ ba abadan faaw ba ci jëkk mooy taalibe bi day sopp ab sëriñam te yàlla dong dong tax mu sopp ko du àdduna du daraja du leneen yàlla dong dong tax loolu mooy benn bi tumam ci saalu amrihi topp topp ndigalam xay su da fum fi rote ñaareel ba mooy saa yu ko sëriñ bi digalee rek mu taxaw temm ci topp ndigal la muy lu ko neex muy lu ko naqari nga xam ne kon taalibe bi dara du dox digganteem ak ndigal su ndigal jógee rek to amati jam lu may def ndigal lolé wa tarku li i'tiradi ak bayyi diingat halifi ci serigne bi mutlaqan ci anam gum man di doon walaw bi batinin ak donti ci biir la fi ma ci la nga xam qadra wa net li nañu ko ene bi ko ñetteel mu baña diingat bi ci genn wet ñoo jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam du ko ci diingat ndax man naam mu diingatu ko ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ni lii daal sëñ bi nangam ak nangam mel ne kon jéngatu ko ci làmmiñ waaye ma ngi koy jéngat ci xol ak xalaat loolu ëpp naa def loolu bu ko defee rek daal di xët sartu murid sadiq wa ma xoote ànd naa moom salabul ixtiyaari wekki ak tànn li husni zannihi ngir rafetum njortam bila inkaarin ci lu weddi bi ko ñeenteel nag mooy day bàyyi sëriñ bi di ko tànnal awale fa ko bëgg awale te moom ci boppam du tànnal boppam dara dara dara day jàpp ne rek sëñ bi moo xam la gën ca moom te fu mu ko jëmale rek foofaa waaye moom ci boppam du jéem a seet la gën ca moom di ko tànn déedéet kon yent melo yi mooy melo yi murid sadiq maanaam bëgg sëriñ bi dëgg dëgg mbëggeel te yàlla tax taxaw temm ci lu mu la digal nga def ko ñetteel bi mooy bañ koo dingat ci genn genn wet ñeenteel bi nag mooy bañ a tànnal sa bopp dara bañ a defee dara moo gën ci yow lu may lu la sëñ bi jëmale rek nga jàpp ni loola mooy la gën ceew fa kullu man képp koo xam ne jamaxa boole na haadihi sifaat yi lay melo minal muridina ci taalibe yi fa yudriku dana jot asiqaati ndër laaya mooy kilifa yu mag ya yene bépp taalibe bu weexee ba boole ñeenti melo yi na xam ne faw mu àgg ca fa kilifa yu mag ya xanaa fa gaa yu baax yi àggoon dana fa àgg su ma bàyyee na topp mu leeral ne ànd na li xijaabi naka ñeel na kiiraay kiiraay mooy li ab ñàkk bi dox diggante nit ak boroomam ab ñàkk bi dox diggante ak boroomam ñeel na ko sittata usul juróom benn cosaan yam bax yi yoo dana yell lil muridi ñeel ab taalibe xat xuxaa seenu dagg wa àndal malaayikata ak naka malaayika ya tab ki danañu jooy xalal muridi ci ab taalibe bi kaana dem nekk na akoolan di ab lekkaakoon ne bayit yi mu lay bëgg a wax suñ bi leeral na ci ne ab bi am na juróom benn yoo xam ne bu yeexee rek juróom benn yi nekk ab ñàkk digganteem ak boroomam xam ne war naa fexe ba tàggoonteeg xanaa fexe ba sori juróom benn yii ndax bu ko deful mu daal juróom-benn yi nekk am ñàkk digganteem ak boromam te itam nee na ab taalibe day néewal ak lekkam du lekk lu may fekk mu loru ja ndax malaayka yi sax bu buñ gisee ab taalibe buy wuti yàlla ba noppi di bari lekk dañuy jooy ndax yërëm ko xam ne moom mi ngi boole yaar yu mënta ànd yu wuti yàlla ak di bari lekk fa xaalu sëñ bi wax li ne sëñ bi nag ne walil xijaabi ñel na kiiraay la sittatun juróom benn minal usuli ci ay cosaan waxattuxuhaa te séeruk dagg xoq yeeleef na ko li ma ñeel ka nga xam ne raama sàkku na alwusul àgg ga nee na liy dox diggante nit ak boromam daal juróom-benn la yoo xam ne bu dul ñoom dong itam juróom-benn yi ñoo ëpp solo ci yi dox diggante nit ak boromam. xul waxal ne kataratul akli moo di barik lekk wa kataratul sharaabi ak barik naan tumma mulaaqaatul baraaya topp tasente mbindeef yi bistihaabin ci àndaale wa katratul kalaami ak barig wax wa katratul manaami ak barig nelaw wa xaflatun ak càggan ak sàggan xan zikri rabbina walis tudd sunu boroom assalaam mi aji mucc ci ayub fanzurhu na nga ko seeti fii jawahiril mahaani ci jawahiril mahaani li cheikhina ñeel sunu sëriñ al muhazzami kadi kuñ màggal ak kay ko jug tijaani yi nee na yi waxoon ba ci njëkk mooy bari lekk lek mom taalibe day fexé bala lek rek xif te bala rek rek bayyi ak bari naan naan itam bala naan rek na fekk mu loru ci nga xamni ne mar la mar na bu wéré wér te bala mandi bayyi ba ko ñetteel mooy néewub jaxasoo maanaam bu dé jaxaso mbindee fi jaxaso go xamni man na ñak rek koka ma ngay ma ngay defum ñak digënté borom ndax nit ñi li ci ëpp jaxaso ñom day indi ay bakkar ak càggan ci yalla motax kon na watandiku bépp jaxasoo bu amul njariñ dama na a ñàkk boole ci ba ko ñeenteel mooy bari wax bari wax bari wax goo xam ne ajiwul ci tudd yàlla na ko moytu ndax day tax xol bi wow ak itam bari nelaw bari nelaw itam ëpp naa def maanaam nay nelaw rek lu yem loo xam ne na sàmm yoru yaram gi lu dul loolu rek mu nekk yëngutu ci digganteem ak boroomam ba ko juróom ne nag mooy na moytoo sàggan ci fàttaliku borom ak tudd ko ci làmmiñam ndax jambi bi kem nam sàggane ci tudd boromam ak fàttaliku ko rek noonu la ko seytaane jekkoo kon juróom benn yi mooy juróom benn pakk yi barik lek barik nan barik jaxasoog mbindeef fi bari wax bari nelaw barik càggante ci fàttaliku ak tudd boromam mom taalibe bi neen loolu man nga ko seet téere bi wax jawahirul mahani qad akhbaru xibaar nañu ne anna malaika aljalili naka malaayika yi yàlla mi aji màgg topp kii danañu jooy xalal muridi ca taalibe ba in kaana ndem nekk na moom taalibe ba ak di ab lekkaa kon li rahmatin ngir yërmaande alayhi ci moom fanfor na nga seeti zaaka loolee fi ta'lifi di xawaarifil maharifi ci taalifu boroom xawaarifil maharifi mu ne wax nañu ne malaaka yi buñ gisee ab taalube maanaam kuy wut yàlla muy bari lekk dañuy jooy ngir yërëm ko xam ne yàlla lu muy wut moom mënta ànd ak bari lekk bari lekk da ko da koy xañ ngërëmal boromam ak àgg ci boromam mi muy wut ne loolu mën nga koo seeti ci taalif woowee nga xam ne moom la ñu tuddee xawaariful maarif thumma bayyana top mu leral lahum ñeel leen ne annal murida naka talube ba as sadiqa bay aji deugal yakun day nek ibna waqtihi doomi waxtoom di doomi waxtoom faqalte mu wax li ñu señ bi leralal ne leralal na talibé ne len tali deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa sasa bañ ko xaaré waxtu dal di ne fa sadiqul muridi aji degguy murid dal man moy ka nga xamne yanqalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atte waxtoom wa wala yartaqibu tadu fuglu manam du sentu amama ho ci kanamam waqtan weneen waxtu fa inna zaaka naka lole yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek nekk na foofee faltan zoro man ngeen ko seti moy dem len seti ko fi jundatul muridi ci téere bi ñuy wax jundatul murid لشيخنا نيال سونو سيرن الخليفه كي خليفه الرشيد مي اجي جوب نينا دغ دغ طالب وقتوم تولو وني لب لوم تي ورا ديف داي فخه با ديف كو تي ريك واي دو خار وين وقتو دا خمو صح وقتو و مي خار دا نا دوند با اك جام ديت اك بو تي دا نا فك مو ام مان گام ديت اك بو بوجي بولي لام ورا ديف تي وقتو و وقتو ولي بو ديف تي وين وقتو دا نا سوتيم ديت ييب دا تي نيك ما تام لولو دا كوي خاج دفر لام ورانا دفر موي دا كوي تخ دال mbiram du jub ne loolu mën ngeen ko seete ci téere bi ñuy wax junnatul murid ila xayri dalik jëm ci lu dul loolee mimmaa ci la nga xam ne bayyana biral na ko fii amrihi ci mbiram wa amri muridihi ak mbirum taalibeem ya mimmaa ci la nga xam ne law tat law tatabaatuhoo doonte toppatoo woon naa ko di wéy la ataytu kon ma dikkee bi maa ci la nga xam ne yàbb xaru dana gëlëmal alxuqoole xel ya ولا خرجت تكون مجنن عن حد هذا التأليف ولس ديتلو بالتأليف الذي تأليف من خمني هوموم نقطة تقطق دونغلا من بحر التعريف كي جيجو خمله بيه جسرين بيه نحن يعني لومل نيغا خمني موم لسن بران دينك تأليفي لين تخمل بان خم نيوارا ديف با ديغو بمانيسين بروم neen lu yaatoo yaatu la loo xam ne su ma ko doon jéema a toppatoo di indi di wéy rek kon day mujj gëlëmal sam xel day mujj sax kon sama taalif yi du doonati taalif woo xam dañ ci tàmbalee rek jëm kaw ndax taalif yi moom daal mel na rek benn toq la ci bu fekkoon ne xam xamle sëñ bi day géej kon taalif yi day mel ne benn toq dong la ca damay bañ a génn nag ci tolluwaay bi nga xam ne moom laa bëgg taalif yi yam ca muy ab tàmbalikaay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni mel kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu wal nusbit nanu saxal wal nusbit nan saxal huna fi qitatan abdok man torat bu ne buñ wesar bashra bo bégale ne mom serigne bi biha ci mom al mutaxalliqiina way jàpp ci mom min kashfi baadi asraaril ghaibati ci wuñu len ci secret yi tukkib géej ليزيدهم غير مدولي لين رغبة أقيمهم وينشتهم أن غير مصور لولين وقال تموخني إرشاد لأجوب الله من إعلام قمل بأن الذين تنكا نيغا خمني تعلقوا أجنا نبيج من لو لا تعلقهم بلقون سينك أجوبية من لدخلوا كن يدوك النار صورة ba adama watihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ab diir la qabla dukhulihim jek seen dugg aljannata aljana allati aljana ja nga xamne wahida waxida nako na ko way ragal ni yalla neena na nan la andil fi ab dog bo xamne wesar la nekul way sëñ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len len ci li waral tukkeem boobule ndax bëgg doli ak xemem ci li nek ak lo len mu daldi ne na ngeen xam ne kat ñi nga xam ne ñoo ñëw jàpp ci man jàpp googu ñu jàpp ci man dong mooy tee buñ faatoo dugg sawara bu fekkoon ne jàpp ñu woon ci man kon buñ faatoo bala ñoo dem àjjana faaw ñu jaari sawara donte diir la ñuy am sawara it duñ jekki-jekki moom daal di wuti àjjana jàpp na gi ñu jàpp ni ci man dong moo leen di may ñu faatu rekk daal dem àjjana te duñ jaari sawara loolu ca ne wa sababu xëybatiya sababu sama tukki bi albaidati bi aji sori moo di ann allah naka yàlla tabaraka barkeel na wa mu kawe araada na moon na fil asali ca cay maanaam ca bu jëkk an akkoona ma nekk chafian di aji ramm li jamihi talamidati ñeel mboolem samay dongo waxaalate mu diggale bay nii sama diggante ne mu diggale mooy waxaala bay nii wa bay na nasaara ak diggante nasaraan فادخلت مو دوغال في قلوبهم سي ني خول الخوف رغال مني سي مان وفعلوا تي ني ما فعلوا لا ني ديف لي الله اكون غير ما باغي نيك متنصرن دي اج نصرانو لاني غير نك من لو تنصرت دونت نصرانو وننا لا دخلت كون ما دوغ النار سورا والحياد تي مسلوغ بالله نك نك يالله تعالى كوينا ولكن واي حسبني مسلم الله يالله تعالى كوينا من النار تي سوارا wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda gëremu ko li ñal ma bi jaahi rasulillah ci ji yonante yalla bi salla yalla na doli te nga allah yalla ta'ala kawena xali ci mom bi alihi and ak wa sahabi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mu ne sama tukki bu sori bi ma dem ci geej gi kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne sama xet wi loola tax nag mu daldi wut sabab say tax tukki bu sori bi am te loolu mooy mu daldi def ci yi tubaab yi ñu ragal ma ne danaa def na mbokki sëriñ yi daan def jihaar ak ñoom tax ñu daldi may génn fii yóbbu ma fu sori foofee ya fekk yàlla rek moo naran loola ndax neen loolu su amutoon danaa soppikoog nasaraan waa réew mi nasaraan su ko defee ma dem ma dem sawara ñoom itam ñu dem sawara mu ne waaye yàlla mi nga xam ne moo nar ci man ak mucc nar ci sama xeet yi tam ak mucc moo ma musal ci loolee ba tax tukki bi am lépp lu ma ci yaakaaroon yàlla defal ma ko ci ma mucc waa xeet yu mucc moo tax mu ne ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla musal na ma ci sawara musal ci sama xeet wi musal na ma itam ci lépp loo xam ne gërëma lu ma ko maanaam bëggu ko ci man lépp lu mu bëggul ci man rek musal na ma ca loola suma kataba topp mu bind ilaa jamihil muridina jëm ci mboolem taalibe yi an nasaiha laa biire ya fa xaalte mu wax ne innahoo naka lay mbir moo di min ñi tukkee na ci man ilaa jamihil muridina jëm ci mboolem taalibe yu góor yi wala muridaati ak taalibe yu jigéen yi salaamun ab nuyoo tayibun bi aji tey mu boobu dana musal aljamiha ñëpp min al muridina ci talibé yu góor yi wal muridaati ak talibé yu jigéen ya wa yudxilu tam yu dugal al jamiha ñëpp fi salaamati ci mucc wal xaafiyati ak jàmm fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira bi jaahi rasulillahi ci daraja yonante yàlla bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak nee na sëñ bi am na lu mu bindoon jëmale ko ci mboolem taalibe yu góor yi ak yu jigéen yi da ko tàmbalee ci niyo nuyoo bu doy waar ndax dane bàyyi kon na ci man jëm ci mboolem taalibe yu góor yi ak taalibe yu jigéen yi nuyoo bu teey boo xam ne da leen di musal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba noppi dugal leen ñoom ñëpp ci jàmm ak mucc ci àdduna ak alaaxira te loolu daraja yonante bi moo ma ko may mu agsi ñoom kon nuyoo bi noonu la teeyee noonu la mel mu tek nak ni amma ba'du dal gannaaw sant yalla julli ci yonenti bi fa indi naka man amar digal na kulla man kep ko xamne ta'allaq ajuna biye ci man li wacc allah ngir jëm yalla ta'ala kawena al karim ji aji tedd bi ta'allumil haqa'idi ci xamlu pas pas ya pas pas ya wa tawhid ak tawhid wa ahkam at-taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyami ak kor wa ghayriha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne jibu dana war xalaa mukallafin ci mukallaf wa inni te naka man takaffaltu warlu naa lakum ñeel yéen taalibe yu góor yi wala kunna ak ñeel leen yéen taalibe yu jigéen yi bi tawaalifa ci ay taalif yakoonu ay dana nekk fiihaa ci ñoom jamihu zalik mboolem loolee li wajhillaahi ngir jëmi yàlla ji taxalaa kawen alkarim ji aji tedd wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ne képp koo xam ne daa aju ci man te yàlla tax rek maa ngi lay diggal li nga xam ne day farata nga xam ko ci sa diine maa ngi lay digal nga faxe ba xam ko te loola mooy li nga war a xam ci wàllu pas-pas muy taw tawxiid sa diggante sa borom nga leer lu ko ba xam ko ni nga koy jaamoo itam lu aju ci wàlluk laab ak julli ak woor ak lépp lu aju ak lépp lu war ci mukallaf rek digal naa kenn ku nekk ci yéen mu faxe ba xam lu loole xam ne loola mooy farata ci xam-xam xam-xam farata la ci bépp jullu bu góor ak bu jigéen mooy rek lu tollu ci dundam xam ko waaye néewuñu na jàng téere xam-xam yépp ba ëmb leen géeju ca loolu bu ko ñenn defee ñoo xam ne ku soxla ñëw ci ñoom rek mu daal di baax gannaaw ba mu diglee loolu mu daal di ne warlu naa leen yéen taalibe yu yi ak yéen taalibe yu jigéen yi dafa wax takkafaltu lakum wala kunna teqale taalibe yu góor ak jigéen ne yéen ñëpp laa warlul ay taalif yoo xam ne ma leen koy defal lépp lu ngeen soxla rek ci wàllu tawxiid ci wàllu fiq ci wàllu tasawuf dana ci nekk du ngeen ko jëggaani feneen loolu maa leen ko war lool te yàlla rek a tax ma warlu leen ko daaneele leetar bi nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa kataba bindoon na it li baadil muridina ñeen lenn ca taalibe ya jawaaban tont mubashiran luy aji bëggale waxasaa an yasriya te xëy na lee mu royaat fii naa ci nun jami xan mboole sunu faqaala te mu wax lii am na loo xam ne sëñ bi da koo bindoon ab taalibeem muy tont loo xam ne tontu lu ëmb mbégte la mu ne nag loolee sëñ bi wax taalibe boobee yàlla na royaat ci lu ñëpp mooy lu ñëpp yàlla nañ ci bokk tam bañeem ca taalibe boobee dong daa tontu taalibe ba ne ko wa aleykum salaamu wa rahmatullahi taala wa ne ko innahu naka li mbir moo di xat jaa ani dikkal na ma kitaabu ko sabataa xel ayyuhal muriidu yow taalibe bi assaadiqu bay aji dëggu wata yàqante na nga wóolu ne an naka naka yow minal aminina yaa ngi bokk ci way mucc ña yaa ngi bokk ci way wóolu ya hindaru yetika hindaru yetika fasal gis kullama lépp loo xam ne taxaafu da nga ragal minhu ci moom waxinda xuruuj ruuxika ak fa génnuk sa ruum wa fi qabrika ak ci sa bàmmeel wa bi annal malakayni ak ci naka yaari malaaka ya assaa ilayni aji laaj ci bàmmeel yaarifaani danañu xam cheikhaka sab sëriñ wa yastaghniyaani te danañu doyloo bi maarifatihima ci seenu xam cheikhaka sa sëriñ bi xanit tawajuhi walis jublu bi suaali ci ak laaj sëñ bi da nekk taalibe boobee yow taalibe bu dëggu bi kooka moom sëñ bi seereel na ko ne murid saadiq la ne ko yow taalibe bu dëggu bi gis naa li nga bind ba gis naa sab leetar waaye na la wóor ne soo gisee luy nuru ne lu ñu ragal la itam xam ne yow loolee taxaw koo jóg yow mucc nga ci lépp lu ñu ragal moo xam jamono yi ngay dund la moo xam jamono yee sa ruu di génn ngay faatu la moo xam boo duggee ci bàmmeel la lu ci mën doon xamal na yow mucc nga ci lépp lu ñu ragal ne la wóor ne itam yaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy laaj ci bàmmeel ci ndigalul yàlla xam nañu ma man sa sëriñ bii te xam giñ ma xam doy na sëkk ba du ñu wëlbatiku sax di la laaj ah, man la ñuy xam giñ ma xam rek hmm, doy na di la laaj dara ndax xam ne ne man maay sa sëriñ loolu dafa rëy lool moo tax sëñ bi taalif ne loolu yàlla bu mu yem ci donk boobu yàlla na royaat ba agsi ci nun ñëpp tafhimun lii ak déggle la maanaam ak xamle la xalaa namati suaalin ci yoonu laaj wa ak tontu bu la neexee itam ne xalaa namati suaalin ci anamu laaj namat booy modd mooy aw yoon mu daal tàmbali nag suaalun lii ab laajte la moom mi taalif moo wax ne daa am lu ma la bëgg a xamal da bëgg koo jaare ci yoonu laaj ak tontu su ma laajee wëlbatiku tontu nga daal cay xamee laaj bu njëkk bi mooy maa la nga xam ne daxa woona ilayhi jëme ca moom a cheikhu sëriñ ba asxaabahoo àndaaleem ya wartaqaate mu yéeg bihim ak ñoom ilayhi jëm ca loolee maa huwa ana moom laaj bu njëkk bi mooy ba sëñ bi ne ko xamni jàng rek mo la fi andi won muy njàngum kese demal wuti foko dewe ko defee koo xam li bëgg rek nak mom nga bëgg ñëwal lu dem neena waaw lolé sëñ bi doon wax lu mu doon jawabu tontu la moy ala yëgal ni ho mom al ikhlas moy selal ga allësi ga nga xamni ho mom ruhul amali moy ruhuk jëf wa natijatu ma'rifati al harifina tay ngirtel xam yàlla way xam ne yàlla bi ne natiijatu ngirte maanaam mooy rekk lu juddoo ci dara ëllësi sellal ma nga xam ne ëllësi sellal ma nga xam ne bii ci moom yax su lu lay amee alwusul àgg ga ca yàlla ëllësi àgg ga nga xam ne xoo moom xibaaratun aw waxin la wala aw firiwiin la xan kaw nin xab di walis nekkuk jaam ba xaalisan di aji sell lillaahi ñeel yàlla lillaahi ñeel yàlla fi xarakaat yi ci ay yëngatoom wa sakanaat yi ak ay dalam